Amadou Diop euh, Boy Bandi ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay. Ah, di wax ni yow euh, ancien international nga nekkoon itam euh, nekk itam directeur bu Jaraaf. waaw. voilà ñu tàmbali ak CAF Awards si gis nañ Sénégal gagné na raaya yu bëri foofu la ci kaaf Awards am na lu toll ci juróomi distinction ci mel ni meilleur joueur ak ballon d'or bu ñu jox Sadio Mané meilleur entraîneur ak Aliou Cissé. ñoo nekk itam meilleure équipe meilleur jeune joueur ci turu Pape Matar Sarr ak plus beau but Pape Ousmane Sakho loolu lépp ñu am ko yow ban impression la jox. waaw d'abord euh, di jaajëfal euh, borom raay yi euh, di wane ni rek que ni mérité nañ ko parce que Sénégal Sénégal moo ko toll parce que booy xool tey li may faral di wax sama naataango yi. Sénégal dafa xew si jamono. Mhm. donc euh, beneen bi mooy euh, booy xool te boo koy wolofal da ngay wax ni biddeewu Sénégal moo taxaw. donc euh, loolu moo wane ni aussi que Sénégal li mu nekkee woon ci dëgg mu ngi nii tey di ko fayeeku parce que tamit bu ñu fàtte nii war nañoo jaajëfal ministre des bi mi ngànk football bi. di jaajëfal euh, maître Augustin Senghor mi nga xam ne moo yore fédération bi ak ñi mu àndal waaye tamit di jaajëfal li nga xam ne mooy jour yi jour parce que euh, ñooñu ñu lim ñëpp defe naa ni équipe moo waral lii tey pour mu am parce que defuñu tennis football lañ doon def parce que football est collectif c'est c'est dans le collectif la leen mu ne ràññee tey ba jox leen lii beneen bi aussi euh, c'est la victoire du peuple parce que Euh, peuple bi ñi ñi gis nañu ni euh, xarañteef bi ñu def pour léegi di supporter équipe bi ba pare sax soppi jikko parce que soppi jikko mënul weesu léegi équipe adverse da doon ñëw fii man maa ngi rappelé ñun bu ñu doon fubal suñu temps sax équipe adverse bu ñëwee commencé xaw ñoo rey ci match bi si yenn football yi public bi dafa leen doon tàccu loolu jeex na fi léegi peuple bi moo lay teg pression ba nga xam ni yow ñun loolu ñu doon daj bitim réew léegi boo ñëwee fii loolu ngay daj mais nañ ko def dans la sportivité comme niñ ko mujjee defe donc foog naa ni loolu ak sunu xale yi ñu yor ci jamono wax naa ni Sénégal war na mun a gën a jàkkaana euh, gis nañ ni ci raaya yi nga xam ne euh, ñoo ko gagné euh, bu dee titre meilleur joueur bu ñu jox Sadio Mané Ballon d'Or bi ak meilleur entraîneur ñu bëri daanaka xamoon nañ ni ñun lañ koy jox ñu ngi ko doon xaarandi waaye bu dee meilleur jeune joueur ndax nekkul woon euh, ab surprise ci yow. non pour euh, li ñu jot a jox Pape Matar euh, ñu nekk ci milieu bi ñun war ñoo mun a bett kañ na gaa ñenn ñi parce que boo ko toppee rek de génération foot Ahmed ba nu muy tey di am Tottenham boobu ñun ñun waru ñoo mun a bett beneen bi aussi Pape Matar boo ko xoolee ci biir équipe nationale bi te xam ni benn benn lii la nekk noonu seen biir war a màgg ànd ak ñoom donc euh, ñun bett parce que am na talent bi am na yar bi am na lépp mais dafa am loo xam ne rek euh, moo ñu topp nii moom mooy li ma lay wax rek euh, suñu état suñu biddéew moo fàq mm-hmm. donc lu ne war ñëw mun a dal si jamono bi buñ ko gëmee pour dem jëli ko. oui d'accord. Euh, gis nañu raaye yooyu yëpp yi nga xam ne gañe nañ ko ban effet euh, la mën a am ci suñu football football sénégalais. waaw euh, effet bi nag dafa war a bëri parce que war na mun a bëri tey tey tey da ngay xool Coupe d'Afrique bi nga xam ne dañu toog muy yàgg yàgg di ko jooy di ci topp di daw beneen bi aussi nga xool ni tey jour yi nga xam ne ñoo dem gañe ji ko ñu ngi yëngal. àdduna bi parce que boo xoolee championnat yi nekk ci ci monde bi yëpp dañ leen dañ leen ràññee donc ñu ñëw ak ni ñu gagné coupe bi foog naa ni euh, tubaab yi ñi nga xam ni ñooy nasaraan yi da nga xam ni ñoom ñooy les agents recruteurs dañ ne réew mii ñu gis d'abord seen joueurs yi ci championnat européen yi ñu ngi naaw tour ñu ne waa déet ak ni ñu gagné coupe bi seen réew war na mun a am lenn. donc war na mun a am yeneen Sadio Mané yeneen Gana Gueye Kalidou Koulibaly ainsi de suite ñooñu daw si ñëw si réew mi beneen bi aussi suñu réew ñu soxla woon nañu ay investisseurs sur euh, le plan sportif toujours sax si football bi parce que tey booy xool la ligue professionnelle dañu am ay difficultés pour joindre les deux bouts tey je pense que investisseurs yi war nañu mun a daw dugg ci biir Sénégal pour que si yii ñuy séntu pour que football boppam Euh, ñu mun ko ci am donc effet bi dafa bëri donc loolu li ko waral yépp mooy li Sénégal def euh, prestation bu baaxam bi hmm. donc euh, am nañu yaakaar bi soppeeku mën a am ci football bi d'accord Boy Djiné ci raaya yi nga xam ne Sénégal jot na koo jël am na boo xam ne moo nekk meilleur football footballeur interclub lan moo tax Sénégal mënu koo jël waaw dama foog ni euh, li ñuy wax wàññi ci benn lay commencé muy ñaar mais ñaareel bi boo xoolee Sénégal li mu jot a raafale nii yëpp ah wax dëgg yàlla war ngaa mun a am lu la xaw mais loolu nag soo continuer nii nga nekkee gën ko yokk je pense que ni yeneen yi la rëccoon sax da koy récupérer waat. d'accord d'accord tey gis nañ euh, Sadio Mané. Euh, dem na ba tollook record yi nga xam ne El Hadj Diouf am na ko maanaam jën ñaari ballon d'or waaye tey mu mel ni euh, desal na ko chemin bu gudd euh, ndax mu tolloog yi nga xam ne moo di Samuel Eto'o ak ñeent ballon d'or yu mu jël ak ci mel ni Yaya Touré tey mu toll ci 30 ans est-ce que euh, mën na egg foofu. waaw mën na fa te yàlla na ko yàlla defal cat yàlla jàppale ko may ko wér-gu-yaram foog naa ni Sadio boo ko jàngatee ci at yi. Sadio dafay monter en puissance Sadio boo ko jàngatee yaa ngi gis ni mu ngi doon un bu bu bu si coquille bi mu nekkoon parce que amoon na benn peeru yaru xam nga boo xam ne euh, jëlul woon euh, palto bi ñu bi nga xam ni moo doon staru équipe bi yor ko woon mais léegi da koy xool si tugalam bi nga wane ni man la saajo donc loolu jël na jël na confiance ci boppam et nangu na porter loolu donc beneen bi aussi nga gis ni moom nu muy dundee ak sérieux bi mu def ci football bi ak entraînement ni mu ko fonkee foog naa ni Sadio buñ ko ñaanalee dara bañ ko jot lii mu nekkee mu am réussite ak waa Bayern boole ci Sénégal équipe nationale bi nekk ci seen continuité wu kii bii ñu nekk di dynamique bi def naa ni Sadio euh, war na mun a jëlaat mhm. mais lépp mu ngi aaju rek euh, Sénégal na continuer ci lancée bi et euh, ñu souhaite ko le meilleur au Bayern d'accord Boy Djiné tey ñu bëri ci askan wi ak ñu bëri ci nga xam ne ay expert lañ seen xel wàllu màcc ci wàllum football jàpp nañu génération Caire 86 mu di seen génération moo gënoon mën a football ëppoon talent ci génération yi football yi fi jaar yëpp équipe nationale te do pourtant équipe bu yees bi am na distinction yu bëri yi nga xam ne yéen amoo leen ko woon euh, lan nga jàpp ni moo leen wutale euh, li ñu wutalee d'abord mooy que ni euh, jamono yu bokkul defe naa ni ni ko niñ ko waxee ci wolof boo buggee defar omelette il faut nga toj nen mhm. beneen bi aussi ñun ñoo jëkk doon les soldats yi nga xam ne dañu newoon ni àll bi ñu dugg lu nekk nga fa rabu àll yaa nga fa rebelle yaa nga fa les ennemis en guerre ñu nga fa ce qui veut dire kon dina metti mhm. loolu yëpp nag ñun suñu génération moo ko nangu dem déggu parce que comme lu ko mën a waxee mooy jamono boobu ay am moyen yi amul ñun fanaan nañ ci aéroport ñun ci ay euh, matelas éponge lu ñu doon tëdd benn drap mhm. nekku daaw ñu nekk hôtel genre centre yi centre yi amul climatiseur ventilateur la doon am tàngaayu ndakaaru bii nga gis nii moo amoon jamono yooyu te si lañ doon bugee yenn saa yi ñu pare entraînement du ñu am ndox bu ñu sangoo donc loolu yëpp ñun dékku nañ ko mhm. donc foo soldat euh, je pense que ni ñun ñoo baliser le terrain et que euh, de par nous le nit ñi commencé di am jàngat di teg ay jéego pour xam ni football dafa am lu mu laaj te football li mu laaj dëgg dëgg dëgg mooy les moyens mhm. beneen bi aussi dafa laaj une organisation parfaite professionnelle te Sénégal nag boo koy xool de génération en génération mu ngi teg jéego ba tey ñu mun a am lii logistique amatuñu problème am ay joueurs yoo xam ne c'est des vrais professionnels wax dëgg yàlla fédération bi am expérience ak ministère bi ñu ñëw nangu teg lépp seen loxo je pense que nag Euh, xale yi buñ ci góorgóorloo ak peuple bii nga xam ni jotuñu lenn lu dul seen équipe nationale foog naa ni war nañu mun a am leneen sax lu dul lii. d'accord euh, lan mooy tey perspective yi pour suñu équipe ak euh, lépp li nga xam ne moom jot na ko gagné ci CAF Awards waaw rek mooy que ni loolu démb la. mais am na li nga xam ne mi ngi taxaw. li taxaw nag ñëpp xam nañ ko mooy le mondial. mondial bii nag Sénégal nii mu nekkee ci biir dynamique plus euh, li nga xam ni moom mooy l'attente du peuple parce que peuple bi porte na léegi équipe foog naa ni bu ñu continuer liggéey gën a retrousser les manches gëm ni ñun équipe amoon na équipe bu demoon ba quart de finale ah Sénégal de war na mun a def la surprise du mondial mm-hmm. beneen bi nag Euh, affaire bi yemul si wax parce tamit euh, des fois ñu nelaw loola mm-hmm. nga nga naagu euh, jaar à mais nii ñu nekkee daal nekkee ko ci dëgg nekkee ko ci liggéey ak fulla ak fayda foog naa ni bu continuer de fii ba mondial ah dinañu am lu weesu suñu njortu de d'accord kàttanu suñu borom. d'accord euh, Boy Djiné gis nañu fii ay équipe yoo bëri ñi jël nañ coupe du monde ñi jël euh, coupe d'Afrique ñu demee coupe du monde wala coupe d'Afrique parfois ñu mën a génn sax euh, ci match de poule yi ndax loolu mën na dal Sénégal ak lan moo koy waral. waaw yàlla boobu ñu dal. Mhm. amul ku mu mënul dal nag parce que sport la ñuy wax football la wax. dëgg la waaw mais loolu. Euh, na romb suñu ay nopp di dem yàlla bu ñu dal. Mm-hmm. ñun daal li ñuy ñaan yàlla mooy am ubbeeku bu bu bu bu bu rafet comme niñ ko amee ci Coupe d'Afrique bi léegi nag ci loolu ngay sukkandiku parce que am nga jour yi. nañu ñaan yàlla rek jour yi ñu nekk en très bonne santé yàlla may leen wér gu yaram moom euh, dynamique bii ñu nekkee gën ko yokk ci liggéey foog naa ni euh, affaire bi d'abord comme xale yi gëm nañ ko te peuple bi gëm foog naa ni ensemble bu ñu mànkoo rek ragal naa ni war nañu créer la surprise. dëgg la Amadou Diop euh, Boy Bandi euh, ñu ngi lay sant di la gërëm. merci. voilà di fàttali yow ancien international nga nekk itam directeur bu jaraaf.